talal ab joxoñ la am ngeen loolu wante juróomi baaraam yuñ talal kuy rom yelwaan la juróomu baaraam yu ñu tàllale yelwaan la baat boobu ak euh, nit kooku ngeen doon gis di Thierno Ndiaye Doss nekkatul ci àdduna si Thierno Ndiaye Doss kon tey faatu na ci ajjuma ji bi ñaari waxtu jotee ca Kaolack jébbal nañ ko boromam ci sëg yi nekk ci Léona seen leneen lu gën a fës ci xibaaru marax gu ajjuma ji di waa SAES e syndicat autonome de l'enseignement supérieur ñooñee nag boo moytuwul dinañu soobu waat ci ay ñaxtu li ñuy laaj délivrance u yu kames yi euh, ak CAMES CAMES di conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur ñoom ñooy nag dafa am seen ay naataango yu defoon l'examen ci atum 2010 ca CAMES wante ba léegi jotuñ kayit gi firndeel ne at mi nañ wala at admis ñu consultation médicale yi ñeel makkatal mukarama ren ji ñu ngi koy amal nag ca CICES tàmbali na ni ki demb foofee nag kon aji docteur ga ñu ngi fa di saytu bu baax wérgu yaram yi ujaat na ma dem ren makkatal mukarama weeru koor ca Istanbul di réewu Turquie suñu naataango yi nekk foofu di wax ñoom naka lañu gisee koor ca Turquie ak kooru Sénégal xool rek ban différence moom moo am ca nañuy amalee foofu weer wu sell wi ak fii ci Sénégal yaatal gi na tuut lay doon mbokk yeeg xarit yi seetaan dal nag jàmm ci seen télévision Futur Média ni ñu ko junjee lañ koy dooree Thierno Ndiaye dos di artiste comédien nekkatul ci adduna si génn na adduna tey ji ñaari waxtu bi mu jotee ca Kaolack mu nga nelawee ca këram moom nag uh, feebar bu yàgg moo ko daaneeloon nit ki daan na lu toll ci benn at mu ngi feebaroon kon Thierno Ndiaye Doss uh, artiste comédien boobu bokk na ci ay pièces de théâtre yu mu joué gelawaar bi ngeen ngeen di gis noonu ak tamit bu ci mel ne Lat Dior Albouri bokk na tamit ci ñi doon joué góorgóorlu suñu équipe TFM demoon ci weeru mars bi ñu weesu foofu ci kaw Kaolack doon ko nemmeeku ji du ñu def rek lu dul dëgtalaat leen reportage biñ fa defoon ak Fat bintu Konté baaraam buñ talal ab joxoñ la xam ngeen loolu wante juróomi baaraam yuñ talal kuy romb yelwaan la. waxam si leeratul góor gi nga xam ne moom la ñu xamoon ci film bi nga xam ne moom la Sembène Ousmane defoon Guelwaar mu yoroon baat bu neex doon kaas li nga xam ne occidentaux moom la ñu indi ci pays africain tey bañ ko fekkee ca këram fee ca Kaolack dafa mel ni sax ku mënatul wax. jom ak ngor gu nekkoon ci suñ biir. waaw fii la hospitalisé woon hôpital Touba ci docteur Diop un bon docteur qui est waaw fi la hospitalisé woon après ah, ma dem Dakar ma demee Dakar foofu ah, aussi je me suis hospitalisé mais yàggu yàggu yàggul dara daal après ma génn ci laa ñibbisi fii ñëw pour me reposer chez moi ak lu ma daal coono ci la bokk et puis ay yi ay affaires yi poumon la mais sant yàlla. mu feebar at a ngi nii góor gi nga xam ne moom ci cinéma lañ ko xamee mu yàgg ci loolu nee na nag ma ngay sant yàlla jamono ji njabootam ñu ngi koy taxawu taxawu ba ca war bu fekkee sax ki nga xam ni moom mooy nguurub réew mi di Abdoulaye Wade am na lu mu ko jot a jox ngir mu mën a faju ñu dimbale ma ñu ñàkk ma dimbale moi je ne me plains pas mes enfants suma taaw mu ngi Angleterre sa mu ngi États-Unis suma télé woote woon léegi téléphone lu ma ko laaj soobee yàlla balaa ngoon mu ma ko moo tax ndimbal ñàkk ndimbal man sonnalu ma woon Ablaye Wade yónnee na ma deux millions euh, na ma deux millions cinq boo ko xoolee yërëm ko loolu ndax coppite bi mu coppeeku moom yi nga xam ne moom moo interprété Guelwaar kii di Ndiaye Dos nag mu wax dafa doon lu métti ci moom wante jéem naa wax li nga xam ne moom moo fi nekk tolof yi nga xam ne artiste sénégalais yi moom la ñuy jànkonteel jamono ji. ñu jox ci situation dëkk bi Ndiaye Douce na moom bu xoolee jamono ji Sénégal dafa soxla changement bu méttee métti métti ba tax ni moom jàpp na ni film bi nga xam ne moom mooy Guelwaar mi ngi mel ni tey la gën a bees ci bëtam. gis ngeen ci boppam. bu fekkente ne li muy dunde ak di ko wodoo mu ko yaakaar ci réew ni moom gis ngeen réew mooma li ko dale ci doomam ba ci ay seet benn kaddu dong la ñuy xam laaj leen ma ban kaddu jërëjëf coo ñoo ñàkk fayda kelwaar ba ba sangoo suuf du sappi te il dira toujours la Il y a beaucoup à faire dans ce pays. On a beaucoup à apprendre aux gens dans ce pays. Seulement, dañu négliger ñi ko war a mun a def muy ñun nous les artistes. moom mu joué 57 long métrage 37 court métrage ak téléfilm yu dul jeex kii di Thierno njay dos nag jamono ji moom dellu na ca fa nga xam ne moom mooy dëkkam bi di Kaolack ci quartier bu ñu naan Ndar gu ndaw jamono ji nag ma nga fa nekk ak famille mi ngi am nag 77 ans artiste comédien bi nag nee na moom ma ngay sant yàlla jamono ji moom sax bu sañoon dafay gën a am tawféex ngir mën a delluwaat ci cinéma bi delluwaat ci la muy def ci liggéeyam bi nga xam ne ñëpp moom lañ ko xamee. ñu ne jërëjëf Fatou Bintou Konté ñuy fàttali ne reportage boobu ngeen doon gis ñu ngi ko TFM mu ngi demoon Kaolack ci weeru mars bi ñu weesu kon Ndiaye Dossa ngi noonu génn na tey àdduna culture sénégalaise ñakk di ko jaale ay mbokkam yàlla na suuf sedd si kawam te borom bi xaare ko àjjana ci barke weeru koor wi ñu nekk leneen lu gën a fës ci xibaar wàllu njàng la ñuy xuus daal di ci àddu résultat CFE yi di certificat de fin d'études élémentaire daanu na fii nii ci Dakar de réussite bi baax na la ñuy wax nee nañu nag kon téeméer boo jël juróom-benn fukk yi ñoom daal dinañu réussir mu nekk nag loo xam ne inspecteur adjoint bu académie inspection académique bu Dakar di seeni Wade daf ko rafetlu bu baax ndaxte nee na booy xool bu ñu gisee année scolaire bi ak rëq-rëq yi ci am xale yi am résultat yu ni mel. lu ñu du def lu dul euh, ngàcce ngaalaama leen Birama Sawner ak inspecteur bi kon euh, laaj tontu dox na seen diggante dañ koy teewlu kàddu yi mu yëkkati. organisation CFO moom ñu ngi sant yàlla bu baax wax dëgg parce que liñ ci séendu yéen yëpp gis nañ ko ci examen yi jaar na ci yoon signalé ñu vraiment benn problème tey jii corrigé ñu def nañu lépp ba am nañu ay résultats résultats yi donc génn na donc ñu ngi sant yàlla bu baax ci fànna boobu. année bi dafa nekk année bu xamante ne dafa mouvementé hmm. est-ce que résultat yi mën nañu wax baax na wala baax hmm. résultat yi de naam mën nañu wax baax na ndax euh, téeméer boo gis euh, juróom-benn fukki yi ak lu topp jàll nañu donc loolu yaakaar naa ni quand même baax na naam boo ko seetaatee ak euh, boo ko méngalee ak daaw xaw naa wàññeeku tuuti waaye li ko wàññi itam boo ko seetaatee da ngay xam ni ren jii dafa nekkoon at moo xamante ne nii ak mu particulier la ndaxte dafa nekkoon at moo xamante ni nii euh, ci la ñu amoon Coupe d'Afrique des Nations ci la ñu amoon élection présidentielle yi. amoon na quelques grèves loolu donc mën naa expliquer un peu li waral euh, résultat yi xaw a wàcc tuuti. ci njàngale mi la ñuy desandi ba léegi niñ leen ko junjee ci boppu xibaar yi juróom-benn waxtu gannaaw bi ñu toogee amaluñu benn doxu ñaxtu SAES di syndicat autonome de l'enseignement supérieur boo moytuwul kon dinañu waat ci ay eh, ñaxtu yu bees bokk na ci li ñuy laaj eh, délivrance u arrêté CAMES CAMES di conseil eh, africain et malgache pour l'enseignement supérieur ñoom nag dafa am seen i naataango yoo xam ne ci atum 2010 dañoo demoon foofee def fa nag ay examen ngir war évaluation waaye deux ans weesu na ci loolu ba léegi jotaguñ këyit gi firndeel ne examen boobu passé woon nañ ko wala passé wuñ ci loolu nag tey jii ñoom dañoo janoog taskatu xibaar yi di xam ne di ko naqarlu nee nañ naka buñ ko saafaruwul boo moytuwul dinañu jóg amalaat ay doxu ñaxtu Fat bintu konte Ibou Cissé ba ñu toogee ay weer defoon benn pose kenn déggatu leen ci ñaxtu gi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa SAES syndicat autonome des enseignants du supérieur delluwaat nañ ca lañ leen xamee woon na ñoom professeur université yi ña ngay naqarlu tardé ga nga xam ne tardé nañ ko ci délivrance arrêté CAMES bi léegi. depuis 2010 ñu am ay collègues yu nga xam ni dañu demoon CAMES def seeni li ñu war a mën tudde examen ngir ñu mën avancer ñu def ko yàlla may leen ndam ñu ñëw. 2010 ak 2012 ñaari at euh, dox na ci te chaque fois na boo bëggee dem CAMES il faut nga toog diiru ñaari at pour nga doog a mën dem CAMES léegi ñoom jàll nañu ñu war a ñëw deux ans yi mat nañu ñu war a dem si yeneen liste maanaam avancé waat encore mais puisque jotuñu ñoom seen arrêté maanaam euh, bataaxal bu nga xam ne ne dafay mandargaal na ñoom jàll nañu war a mun dem si yeneen liste amuñ ko et eh bien dem mënuñu dem kames mënuñu dem loolu dafa nekk loo nga xam ne ni ñun dañ koy ñaawlu. tey nag ñu jàkkaarloo ñi nga xam ne ñoom ñi ko ci xibaar yi ñoom ñi di waa SAES e ña ngay ñaax nguur gi ci nouveau bachelier yi nar a ñëwaat université Cheikh Anta Diop te bu ñu xamee ni fii ñu toll nii étudiants yi sax ña nga fees dell ci université bi léegi. amatuñu capacité boo xam ne ni may na leen ñu jëlaat benn ndongo alors comme problème ba nga xam ne boobu la ñu jànkoonteloon daaw te kenn réglé gu ko ñu war a amaat lim mbooxtal la ñu gën ngaa néew euh, euh, trente mille la fan lañ leen di def loolu dafay mel ni. dafay wane ni yeneen i problème yu gën a tar ñoo war a dolleeku ci problème yi nga xam ne yooyu la amoon. ñu tegati ci nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa SAES e di naqarlu à chaque fois que bu ñu duggee ci benn hôpital dañ leen di dàq ndax lan li nga xam ne moom mooy université fayatul li nga xam ne moom mooy dette hospitalière bi seen imputation budgétaire yi benn hôpital fii ci Ndakaaru jëlatu ko. ku toll ni enseignant université wala boog personnel université. ñuy am imputation pour nga boo boo feebaree wala boog sa famille mu am ci ko feeb ku feebar nga dem si hôpitaux yi ñu war laa faj pour nga mën ñëw dellu si def sa liggéey ni mu waree waaye da ngay jël sa imputation dem si hôpitaux yi ñu ne la du fii. mu di métit yu bëri ñoom nga xam ne ñoom la ñu dajale ñii di waa SAES ñu jàpp ni ñoom jamono jii seen xaar mi ngi bëgg a yàgg bu nguur gi jugut ñoom di leen jug yëngu-yëngal. leneen ci wàllu xibaar di consultation médicale yi ñeel waajtaay yi jëm ca makkatal mukarama ñu ngi koy amal euh, depuis démb ca CICES foofee nag kon ca CICES boo demee aji docteur ga ñu ngi fa di saytu wér yaramu ujaat yi nga xam ne ñoom ñoo nar a dem ren ji ca makkatal mukarama euh, et consultation médicale yi nag kon dafa nekk benn ponk bu am solo ci waajtaayi ñeel euh, makkatal mukarama ndax booy xool sax euh, consultation médicale yi mënuloo dem makkatal mukarama saa nga jaar ci lu ni mel Ibou Si Ibou Diouf euh, demoon na foofu moom ak Yaaya Diallo ñu teewlu seen reportage. ngir mën a dem fi nga xamante ne mooy fële ca Màkka rek jullit yi war nañu def li nga xamante ne mooy visite médicale. at bi nag CICES la ñuy amali xew-xew bi. nga aj dañu ne li man istata ilayhi sabil istata boobu ku ko mën na ki ko mën mooy d'abord da ngay wér bokk na ci charte yi ku wérul doo dem màkk ndax coono dong la donc nag ñu tëral visite médicale pour xool ndax nit ki apte na pour dem def ponk l'islam yi wala déet. ñun du du pour wax kenn inapte nga doo dem mais pour seet buñ ci gisee feebar boo xam ni mën nañ ko faj bala ngay dem ñu faj ko buñ ci gisee feebar boo xam ni. il faut ñu jox la lu lay euh, tax du la daaneel ñu bindal la ko. fii nag boo fi ñëwee di nga fi fekk rek ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu santé. médecins yi topp euh, ñi nga xamante ne ñooy ujaaj ji rek ci wàllu wér yaram yenn saay nag dañuy jànkonteel lay jafe-jafe. dañu àndul ak seen sago seen xel wayul torop mënuñu leen bàyyi ñu dem ndax ñoom mën nañu gaañ seen bopp wala ñu gaañ mbooloo mi ñuy nekkal. dina am nag ñu ñu rëcc ñu ñu rëcc mooy ñi nga xam ni dañuy normal loo seet yëpp day normal ñu dem ba àgg dugg Kaaba ga wala ñuy dem ca euh, Médine wala même ci biir avion bi ñu taxali ko seen sago médecin accompagnateur yi ñoo koy jéem traité foofu fexe mu calme ñu nelaw loo ko ba ba ñuy fii ci CICES nag am na yeneen liggéeykat rek yu gis seen bopp ci li nga xamante ne mooy visit médical yi bokk na ci photographie. ñun euh, ñooy toppatoo mbirum photo yi si aju màq bi. day defar suñu affaire moom. loolu duñ ko weddi parce que traite la boo xam ni annuellement la ñoom ñi aji maax ni ñuy demee annuellement noonu lañ koy toppatoowee annuellement donc euh, buñ ci gisul woon njëriñ duñ ci sonn di ko toppatoo chaque année. at bi nag Sénégal dina am lu mat fukki junne yi ujaaji ak lu tegal laata nag ñuy dem fël nga xamante ne mooy màkka ñu ngi waajal xew-xew bi bu baax a baax. jërëjëf Ibou Diouf leneen ci wàllu xibaar ak benn accident boo xam ne dañ ko nemmeeku fii nii ci booru monument de la renaissance kon foofe nag liñ fay faral di nemmeeku ay accident bëri na mu ngi noonu ngeen di gis benn taxi moom moo dal dal ci beneen oto booy xool sax taxi bi tuutee des mu daal di jàll ci boor ba fële na le euh, taxi man boobu nag ca nekkoon ak client am ñoom ñaar am nañ ci ay gaañu gaañu yóbbu nañ leen hôpital. leneen ci wàllu xibaar ba tey ren ji comme ni ngeen ko xamee groupe Futur Média dafa jug nag taxaw ngir gunge këru diine yi ci koor gi nga xam ne moom la ñu dëgmal gannaaw Kaolack ñu ngi woon nag tuuba foofee nag kon gisee nañu ak kilifa diine yi nekk foofu du ma def rek lu dul bàyyi leen ak Mamadou ibrakan di directeur général bu groupe Futur Média kaddu yi mu yëkkati foofee ci Touba. li fi indi tey mooy ziyaare leen. di leen baalu ak ci weer wu sell bi di weeru ramadaan mais yuusu dafa ne joxe xibaar baax na bégal nit ñi bu ko laajee baax na yee leen ci àddina baax na waaye bu ñu fàtte ni entreprise dafa am responsabilité ci askan bi nga xamante ni moom la joteel responsabilité boobu mooy responsabilité sociale de l'entreprise loolu moo waral suñu tànk ñu indaale loo xamante ni bari na bariwul waaye suñu yéene weesu na foofu di Adama Gaye nekk journaliste consultant du ma def rek lu dul euh, bamtuwaat leen li fi gën a fës ci xibaaru ajuma tey jii euh, moom euh, Thierno Ndiaye Doss di artiste comédien tey jii nag nelaw na kon ca Kaolack bi ñaar waxtu jotee jébbal nañ ko boromam ci cimetière yi nekk ca Léona Niassène foofu ca Kaolack. leneen lu gën a fës tamit ci xibaar yi di waa SAES syndicat autonome de l'enseignement supérieur ñoom ñooñee nag boo sàgganul soobu waat ci ay ñaxtu euh, gannaaw bi ñu toogee juróom benn weer te yëngal lu ñu lu ni mel leneen tamit ci xibaar di consultation médicale yi ñeel euh, makkatal mukaramu ren ji consultation yooyu ñu ngi koy amal euh, niki démb la tàmbali ca CICES e foofee nag kon aji docteur ga ñu ngay saytu bu baax wér yaram mu suñu ujaaj yi na ma dem ren ji ca makkatal mukaram Euh, bokk na tamit ci lu gën a fës ci xibaar yi gis ngeen reportage bi sànq ca Istanbul foofee nag euh, suñu naataango yi fa nekk ñu ngi doon euh, wax rek ñoom seen xalaat ci koor gi naka lañ ko gisee fii ci Sénégal ak tamit foofee ca Istanbul ban différence moo ci nekk mu mel na nag kon euh, gan gi mu ngi yëg si ni ma leen ko waxee Adama Gaye lay wuyoo moom nag euh, journaliste consultant la tey jii bokk na ci li ñuy àddu ak moom di ñëw wupp Hillary Clinton fii nii ci suñu réew euh, monsieur Adama Gaye kon ñu ngi lay dalal. lay fay yow ñuy fàttali rek ne journaliste consultant nga. tey jii li ñuy àddu jëmale mooy ñëwub secrétaire d'État américain bi fii nii ci Sénégal di Hillary Clinton mu ñëw euh, def benn discours bu élogieux ci démocratie Sénégal ñenn ñi jàpp ne lu baax la yow naka nga gisee Hillary Clinton ñëwum fii ci Sénégal. waaw euh, salaamaaleykum ni ma ko gisee euh, baax na que secrétaire d'État américain ñëw Sénégal ñëw Afrique. Euh, parce que du Sénégal rek dafay visiter yeneen pays euh, Afrique euh, dana dem Malawi dana dem Ouganda Sud Soudan Afrique du Sud et cetera baax na mu ñëw fii pour wax tamit Amérique nan la bëgg liggéey ak Afrique ndax àddina bi mi ngi soppeeku fi ñu toll justement ci loolu déglu nga discours am ah. naka nga jàngatee discours am man déglu naa discours bi bu baax déglu naa ko bu baax si làkk bi ni mu koy waxee directement du traducteur laa ko déglu ni mu koy waxee anglais laa ko doon déglu ba muy wax euh, dafa am benn euh, baatu anglais bu ñëw sama bokk li anglais di wax where is the beef ana bis beef teg bi ana substance bi lan la bëgg a wax ndaw si parce que dafa mel ni ku egsi fii xamul Afrique bu baax xamul Sénégal bu baax ni muy présenter situation c'est comme si daal c'était un paradis àjjana la fekk fii euh, di féliciter à droite et à gauche di donner des satisfecit alors qu'en réalité Amérique su fekkee ne bëgg a ñëw Afrique bëgg a compétir avec yeneen dëkk yu mel ni Chine ak yeneen pays yoo xam ne Afrique daf leen intéressé pour ndax Afrique de am 30 pour cent euh, des ressources minières euh, disponibles au monde am plus de 10 pour cent des ressources pétrolières am un marché boo xam ne très important vaste un milliard d'habitants euh, am une démographie qui monte et ak euh, des voies politiques yu posées de plus en plus donc man dama yaakaaroon ne su fii di wax daf fiy wax wax boo xam ne day am maanaa am substance ba pare soulever des problèmes par exemple la corruption les détournements de deniers publics qu'est-ce que l'Amérique fait pour rapatrier les financements ou les versements effectués si ay comptes ex euh, américains ou en Occident par ay dirigeants africains yoo xam ne rencontre na leen moom yoo xam ne ils ont ils se sont yoo xam ne totalement douteuses loolu yëpp waxu si dara dafa mel ne c'est un paradis je crois que c'était maladroit sama gis-gis li mu wax du loolu mooy tax Amérique mën a am relation stratégique bi mu bëgg am ak Afrique. Euh, mais ci biir ci biir discours am tamit wax na ne Sénégal ci politique américaine bu bees bi Sénégal dina ci am wàll wu am solo léegi loolu lakkal naka lan la war a mën a jur ci diggante relation entre Sénégal tamit ak Chine bu ñu xoolee ne tamit comme Afrique daanaka ñëpp ñu ngi wu di ñëw Afrique ngir euh, intérêt bi fi nekk. guerre froide bi moo changé lépp bi guerre bi jeexee dans les euh, fin 1980 euh, pays occidentaux yi États-Unis euh, ak France euh, pays européens yi ñoom ñëpp dañoo xawoon a rocceeku bàyyi woon Afrique jox ko si ay organisation internationale banque mondiale fonds monétaire international bi ñu gisee Chine ñëw euh, dugganteeg Afrique parce que Chine dafa soxla ressources naturelles africaines yi et que ñu commencé gis échanges commerciaux yi jug ci kaw aujourd'hui man na 160 milliards de dollars bi diggante Chine ak Afrique ah occidentaux yi xam ne nag léegi am na benn compétition géopolitique géoéconomique économique la ko bëgg a tudde bu am ñu ne du ñu bàyyi Afrique ak chinois yi mais li xew mooy c'est que ñoom occidentaux yi dañu nekk situation financière bu metti Euh, am seen croissance économique marché wul euh, amuñu des réserves extérieures mu aide publique au développement mënatuñu ko joxee daanaka même Clinton bi mu ñëwee Hillary bi mu fi waxee waxu fi waxu ne dina am xaalis bu mu jox Afrique wax na ne dañu coopérer et cetera mais amul moyen li wax Sénégal ne dama danaa leen dimbali si Casamance am nañu si applaudir c' est bien mais nañ seetlu les leçons quand même que ce soit en Somalie que ce soit euh, en Irak en Afghanistan pays yi nga xam ne Amérique intervenir réglewul problème yi deuxièmement bi muy wax affaire aide financière aide bi mu annoncé mooy 10 millions de dollars rek muy 5 milliards CFA joxe pour contenir le terrorisme euh, dans le nord du Mali mais euh, au même moment il y a une il y a moins d'un mois les Chinois def nañ forum de coopération Chine-Afrique c'est pour leur intérêt dañu def pour neexal ñu seen bopp lañ koy def mais au moins ñoom teg nañ stable bi 20 milliards de dollars pour trois ans muy 10 000 milliards de francs CFA. 10 000 milliards de francs CFA Adama Gaye euh, maa ngi jéggalu ndaxte waxtu wi moo ñu xaw a njatt fii ñu toll waaye waxtaan bi am na solo lool te du ñàkk ne di nga ko gën a mën a yaatal ak Mame Fatou Ndoye ci xibaaru nasaraan yi jërëjëf ci teewaay bi fii nii mbokk yi xarit yi kon mu mel ne foofu la ñuy ndar keppe xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah bu ci yàlla àndee jërë ngeen